di sant yàlla ci dikk bi nu dikkaat fii ci kër euh, Aziz muy dikk boo xam ne yaakaar naa ne du ngeen ni guddee miin nañ ko micro yi daa xaw a bari ok dimbali ma ci rek muy dikk boo xam ne du ni guleet ndax yéen a ngi koy bëgg a miin booba léegi gis ngeen ni ñi nga xam ne ñoom la Aziz doon bokkal ñi mu doon yëngoonal ci wàllu musique kenn ku ci nekk ñëw nga indi sa njaal tey nag ki ñëw dafay kenn ci Euh, sur partie musique de la sénégalaise di jàmbaar di ko yaru koo xam ni euh, yaakaar naa ni jarul sax ñuy ba ci wàllu yar gi mu am moomoo jee ci yar moomoo jee ci joxe cër moomoo jee ci fonk doomu adama naam bi yëf yi am kenn ku ne gis na avant yëf yi sax diggante ak ak Aziz muy relation yoo xam ne relation yu particulière suñ ma mënee kalbeel ñool ci bunt bi nag dana baax ndax lii ñuy wax dañoo ñor lool dikk bii muy dikk nag tey buñ sañoon boo fiy dikk si beneen façon ngay dikkee waaye jaam day bëgg ba borom mooy dogal kenn ku ne xam sa diggante ak Aziz yow boo toogoon rek mën nañ la koo jaar ndax sëpp ngeen loolu te am ngeen ay relation yoo xam ne ngeen mën nañ cee jël seede nga ànd ak sa mbokk yi mu jukkee koora ak ñi nga àndal ñëpp rek mën na yóbbaale ji des kon d'abord ñu ngi lay masaw ji la jàlli lu bokk di ñaan tànk yi nga indi ba yi ngay delloo yàlla lépp di yëw nga fekk fi nag yaayu Aziz ak ayda ak Samba ngeer bi nga xam ne itam depuis fi am ba tey lekkul naanul nelawul Samba ba ngeen li ma ko tudd ci interview yi mu ànd ak Aziz ànd gor nag loolu damay incité ko wax parce que euh, bi Aziz daanoo bari nañu jóg waaye li muy dund ak Aziz nii dafay lu mu gëm ñu ngi lay masaw Samba bu baax gis taxawaay bi ah tey moom lii daal rëy na ci ñun lool ñu bàyyi la nga internet yoo xam ñu ngi lay suivre tey lu waral tànk yi sax jarul ñu koy laaj ndax xam dañ li la fi sa diggante ki dem muy Abdou Aziz. salaamaaleykum Fadel maa ngi lay nuyu. Euh, di nuyu sama yaay bi ma fi fekk. Euh, di nuyu Aïda ak Samba ni nga ko waxee. ak famille bi yëpp. yaay nag tey dañoo ñëwoon pour euh, jaal si yéex nañoo ñoo ndax dañoo voyagé woon nekk du fi woon amuñ contrat à loolu moo tax sax xanaa suñu yéex a ñëw fii mu nekk loo xamante ne nag euh, tiis la bu dal ci ci ci mën naa ne culture sénégalaise ndax Sénégal yëpp ñoo ñàkk Aziz musique sénégalaise bu ñàkk Aziz donc képp kuy ndaanaan kuy yëngu ci culture gis naa ne ñëw nga fi ñëwagul xam tamit xam naa ne ñu ngi waaj pour ñëw ndax Aziz moo toll noonu donc mu mu seq ak ñëpp nag jàmm man daanaka liñ noonu gisante sax du bëri wala di déggante relation yi tollul woon noonu waaye fu ñu masoon daje rawatina sama vidéo bi ñu mujjee def àdduna yëpp seetlu ko àdduna yëpp sax àdduna yëpp ma ko jaal ma nekkuma fi mais ku ne woo na ma di ma ko jaal parce que daanaka bokk na ci mujjantalu vidéo bi mu mujj def bu weesoo bu demb bi ma mujjee seetaan bokk na ci vidéo bi mu mujjee def mu doon ku am fulla am fayda ku fonk liggéey ku jullite am caractère macha allah. donc loolu bokk na ci ay qualité yi ma marqué ci moom te boobu la ñu ñaareel bi mooy mu ñëw fekk sama baaramuñ bi mu ñëw def la mu defoon ca vidéo ba maa ngi koy tooñ sax maa ngi nekkaan bés ni ki tey ñëw nga waaw ah, ci groupe bi ngay bokk Kora mën na maa seede mu doon loo xamante ne naqar la ci ñun ñëpp naqaru xol ñun ñëpp naqar ñun ñëpp tiis donc ma di ko jaale suma yaay gii waaw di ko jaale bu baax a baax di la masaw di la wax ne Aziz yàlla na leen dëddoo jàmm yàlla na réccu sax li mu noonu yàggee ci kaw suuf yàlla na dee di noflaayam mokk waali waaw ndeysaan ma fàttalikoo rek waali bi ma ñëwee bi ma ñëwee bi ma dajeek moom arena dama dugg sa rek mu ne ma man doomu Aziz laa manqué tooñ ne kan kon Aziz am na doom bu toll nii moom ndeysaan mu nekk loo xamante ni day dellu si di dellu si waat alors yal na yàlla yërëm leen jéggal leen xare leen ci aljan yi gën a vraiment am nañu naqar lool bëggoon nañ nag buñ fi ñëw yaay fi tànku jàmm ak ayda la ko yàlla bëggee waaw ko yàlla soobee kontaan lool tamit yéen it gis nañ depuis bi affaire yi amee ba tey ngeen taxaw taxawaay bu am solo. waaye tamit sénégalais yi tamit taxaw taxawaay bu am solo. Mm-hmm. donc Aziz fa mu nekk. dëgg yàlla xolam seet ndax ni ko sénégalais yi taxawoo ñëpp a ko naqal fa dem encore jaa ngeen jëf. d'accord jaa ngeen jëf. ci tànk yi mais donte yéen ñaar seen relation euh, taxu ko woon a sori yenn sori yi. Mm-hmm. mu mel ni Aziz. ñu bari bi mu dëddoo ci lañ ko nit ñi gën a xam. dëgg bari na ñu nu faat ci anam bi hmm. ñu wax ko ñaari fan ñetti fan mu jeex hmm. mais kaw Aziz ak Wally des ci bopp sénégalais yi hmm. partout dans le monde di ko waxtaanee ba am ñoo xam sax dan mënuma lekk mënuma nelaw parce que dafa mel ne maa ko jur lan la lan la ci nit ñi war a jàngee ci nit daal dafa la def kii mun koo xam waaw xam nga rek àdduna moom dafa doy waar te nag wax dëgg yàlla donc lépp ci ay dogalu yàlla suñu borom waaw te ñëpp lu mu ñëwee rek waaw début bi moo naqari ñëpp nag moo metti ñëpp waaye yàlla moom bu ñëwee rek ñëw donc liñ ciy wax rek lenn kese la mooy ñun lenn li sunu boroom la waaye lenn li tamit aussi gouvernement bi la ndax lépp sécurité la ñu soxla ci suñu réew mi gën a yokk sécurité bi xam naa ne sax taxaw nañ ci ndax Sénégal moom daanaka bokk nañ ci réew yi nga xamante ni sécurité bi wax dëgg yàlla am na solo lool waaye tamit dañ naan fas lu mu daw daw du tee ñu làbbali ko ñu mm. gën a yokk si sécurité bi rek gën ci bàyyi xel donc ñëpp ko naqarlu ñëpp ko naqarlu képp kuy wéyjur rek kuy ku am njaboot naqarlu nga dem ak Aziz ak waaye mm. waaw képp ku am xol ndax loo xam ne àdduna yëpp a ci wax waaw adduna bi yëpp ah amul amul amul da gis sax xamul réew tubaab tubaab yi sax seen seen seen seen seen télévision yi ñu ci bëree bëree bëree bëri di ci wax donc loolu nag Aziz moo ni toll waaw Aziz moo ni toll xëy na yàlla moo ne woon bu demee la ko àdduna yëpp di xam donc waaw dañuy wax ji sax billaay du du mën a bëri ndax ndax waaw dañu am naxar saa su ne dañu am pen bu ñuy wax mais mënta ñàkk nag mënta ñàkk waaw ñu woon relation noonu mais am na ko ak suma ay mbokk mm. parce que boo Pamma ak Sabel boo leen gisee fu ñu mës a taxaw Aziz dafa taxaw seen wet man loolu tax na ma gën ko fonk mm. man loolu dafa taxoon ma fonk ko waaw ndax ni mu leen bëggee mm. Pape Didier aussi di réalisateur waroon na fi sax ñëw donc lépp lu mu mosaan a def rek Aziz la ci sànq ba ci sama vidéo bi mujj donc bi mu demee Aziz laa woo dama kontaan parce que dama xam Aziz ci ni mu amee gëdd ci li muy def daf koy jox full def ci fayda ba mu mat sëkk du la ameel dara waaw yow de mën nga koo amee waaye amel moom du la des du la desel dara waaw boo ñëwee fekk ko sax xoolal bu la nuyoo sax pare na ca parce que bëgg na remplir contrat ba pare nag après doog a waxtaan ak yow doog a mën a am de de xam li muy lu muy lu muy lu muy seqanteeg yow waaw li ñuy li ñuy jooy rek mooy talent ba waaw macha allah talent ba la ñuy jooy waaw ah, yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla yéey seen yërmande ci kawam jéggal ko xare ko ci aljana yi gën a màgg ñamu fekk ak ko fekk ñëpp jërëjëf jërëjëf muy kàddu yi moom a pour paree xam naa du ñàkk seen teg maître Ndiaye ginnaaw moom a déplacement bii mu def ànd ak ay bokkam ànd ak ay xaritam mm-hmm. tey ngir jaale si la li nga xam ne yéen ko bokk wax naa ko léegi moom rek bu toogoon war nañ ko ko mën a jaal ngir relation yi mu am ak ñoom Sabel ak ñoom Pama nga xam ne Aziz dem na ba intégré ci famille boobu ba bokk ak ñoom te yaakaar naa ne euh, képp ku topp sarak bu bëgg ko am na looy yëg ci moom mu jëmateewul mu ñëw lan nga ciy yëg ak yan kàddu ko koy wax di leen bien sant rek bien ñaanal bien di wax bax ni man ñàkkuma am naa leen fi ñàkk léegi ñu nekk Aziz maa ngi ñëpp ñu ngi nuyu bu nekk ñu may woo maman da ngaa feebar lan moo jot dana ana ordonnance dem nga hôpital yéen ñëpp kenn nga Aziz dem na yéen ñi yéen ci des di na ko xam ne am na hmm? xam nga Aziz moo dem yéen a ñàkk Aziz mais man ñàkkuma leen ñàkk ñàkkuma leen ndax yéen ngi ci ku ci bëgg rek di am loo def koo ci tëgg rek xanaa kenn ma bañ a wax man ma bañ a wax ak ma ci wax rek danga fajal sama soxla kon nag sant naa leen gërëm gërëm Sénégal diaspora bi ñëpp maa ngi leen gërëm gërëm ci taxaw ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp journaliste yi yëpp maa ngi ngi justice maa ngi gërëm maa ngi gërëm ñëpp man yaay as dabala maa ngi sant ñëpp ñëpp sama xol dafa tooy wax bi mën mënuñu bëri yi mënuñu bëri mais sant naa gërëm naa leen ñaanal naa leen ngay bëgg a àgg yàlla ngeen fa yàlla àgg ci daji Muhammad yàlla bu ngeen jàq yàlla bu ngeen jaaxle yàlla bu ngeen jàq yàlla bu ngeen jaaxle yàlla bu ngeen jàq yàlla bu ngeen jaaxle yal na yàlla daf cat yal yàlla daf cat yal na yàlla daf cat yal na yàlla daf cat xool bi fees na man wax wax bu bëri bi mën na ko waa jërëjëf sant naa leen gërëm naa leen jërë ngeen jëf. kon ñu bàyyi moomoo ak sunu yaay ñoom ñu. Kora waaw parce que Kora. waaw Kora waaw Kora fekkee ko tuut Samba teel ko. Samba teel leen ma teel ko. Kora tey yow tam li may wax rek. def. yow tam mën nga ko def. sa diggante ak yi ñëpp xam na ko. waaw waaw waaw waaw. Aziz na moom dama koy jaalee d' abord sama bopp bopp. di ko jaale Sénégal. mais yàlla dafa defoon maa ngi moom. yaakaar naa ne tournée bu mu mujjee dem sax maa ngi moom ñoo ko am ànd ak Kumba mu doon ni koo xam ne nag suma xarit la. Bargny suma masaan am programme. dama ne maanaam mën na noo xalaat nañu. keneen man na bañ a waaye ñoom ñëpp dañuy xalaat ne Aziz day ñëw mhm. parce que xam nan ñu ma soxoon ak Aziz mu doon sonn comme ni ko moom ma waxee kon fi ñu toll ni moom koy ñaanal rek ne mhm. lii moom dal na xel mhm. lii dal wax ni première kilibam ak première son man la woon ne ma ko a kenn du ko tëggal yaa ma koy tëggal jël ma man Mansaar ñu defal ko ko kilib bi yow ay dañoo fa nekk ko ma woon kon donc Aziz dafa jege ci man mbir mi nag moom nii rek la mënoon a demee yàlla moom lu mu def rek mu gën pour gàttal rek ñu koy ñaanal rek na ko yàlla musal ci cat yàlla na ko cat jiitu ci bàmmeela Aziz moom ko xam ak xolam xam ne ni ku baax la ñu koo xam ne ni Aziz amula kenn problème parce que Seydina Muhammad kon donc yàlla na ko yàlla yërëm ah ko yàlla yërëm man loolu laa mën a wax ci moom parce que xol yi nag mhm. na ñaanal suñu yaay ji tamit yàlla yàlla guddal fanam. di ko na xam ne ni mag la. waaye boo ko xoolee rek moom boo ñëwee xool ko rek sa xel day gën a dal ci Aziz. donc yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla musal ci cat. yàlla di ko cat jiital suñu bàmmee la. moom suñu suñu lépp la. boo gisee nag mu deme nii danoo génnoon. affaire bi dafa fekkoon ñu génn. la waral sax ñu xaw a yéex a ñëw. mbiram moom ñu rek nga mënoon a demee waaw. jërëjëf di wax ni Sénégal yal na yàlla tàppal xool yi.